seen ci jàngoro yi dee leen ci jàngoro yi dee leen aar seen ci jàngoro yi bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo bare mbokk yi asalaamaaleykum ñoo mbégte teewaat ak yéen fii euh, ci Walfajri tey nag euh, tàq jëm ci wàllub wérgu yaram ñu dippee ko wérwérle seen numéro bu njëkk mu nekk nag en direct euh, fii ci Walf TV ngeen mën cee bokk yéen ñi nga xamante ne yéen a fi taataan nii lépp lu aju ci wàllub euh, xibaar tey ñu fas yéene waxtaanee ab jàngoro goo xamante ne nag ci wàllu néegu sëy lañ ko xamee. muy euh, dal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, góor ñi ñu dippee ko ci nasaraan dysfonctionnement érectile ci olof ñu ko naan tële wala suñuy rafetal ne góor gu wàcc lal ngir waxtaanee ponk boobu nag euh, dinañ ci dalal koo xamante ne xam-xamam dafa màcc jëm ca fànn boobu muy docteur bu di urologue nekk ci hôpital général bu Grand Yoff ngeen mën cee bokk itam ci buumu jokkoo bi di 88 628 99 99 114 soo leen ko jébbalee seeni laaj euh, mu mun leen euh, tontu ñi nga xamante ni itam euh, ñoo nekk ca net bi mun nañoo dugg ca Facebook bu Walfadjri page bi di weer weerle ngeen jébbal fa li nga xamante ni itam moo di seeni laaj ñu fas yéene leen ce tontu laataa ñuy xuus ci waxtaan wi nag dañuy dalal suñu gën bàyyi ko mu nuyoo ba noppi muy docteur Issa Labo ñu ngi lay nuyu. jërëjëf euh, soxna Awa Diop Ndiaye donc euh, ñu ngi leen euh, auditeur Walfajri FM yëpp Walfajri TV di leen di remercier ci invitation bi nga xam ne defal nga ko ci émission bu njëkk ci wér-wérle mm-hmm. donc ñu ngi koy rafetlu jërëjëf euh, docteur euh, Issa Labou niñ ko waxee dafa am ponk boo xamante ne ci lañuy fas yéene taxaw tey amal ci ab càmbar lëñbët lépp li nga xamante ne moom moo nekk ci biir ba ñi nga xamante ne suñ ci noppee war a mën a wér wala mën a dem euh, faju ji tey ñuy waxtaanee dysfonctionnement érectile ci nasaraan ñu gën ko xam ci tëlee ci wolof wala góor gu wàcc lan tey lan nga ñu mën a wax ci jàngoro jooju di dysfonctionnement érectile waaw jërëjëf soxna Awa Diome Ndiaye waaw dysfonctionnement érectile ñu koy wax comme ni nga ko waxee ci olof euh, télé euh, dafa nekk euh, buñ ko buggee définir dañ ko mën a jàppee comme góor goo xam ne xëy na ngóoram dafa wàññeeku wàññeeku boo xam ne dafa yàgg ni nga dinañ ci wax ne lu mat ñetti weer boo xam ne wàññeeku bi dafa continuer te permettre ko maanaam mu mën a sëy normalement donc pour mën a satisfaire partenaire am loolu la ñuy wax góor goo xam ne dafa tili mhm. muy feebar boo xam ne naam fi mu nekk nii euh, commencé na bari ndax am na ay feebar yu bari yoo xam ne mais bokk na ci aussi suñu nekkin ak suñu dund bokk na ci loo xam ne moo koy favoriser ba nga xam ne xaw na bari léegi daal ci consultation bi di dal nag mag ñi ak xale yi yëpp. Mhm. mais li ñu seetlu comme ni nga ko waxee dafa tàmbalee bari bëri na naam waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndaw yi la ñu gën a nemmeeku ne jàngoro jooju dafa leen di faral di dal jamono ji ñu nekk ñu bëri jàpp ne li nga xamante ne moom moo di débauche bi maanaam foog gu bëri gi moom moo leen koy yóbbee. waaw loolu defe naa ne peut-être euh, ci ci xel yi nit ñu la nekk rek waaye li koy sabab c'est vrai. bokk na ci surtout ci xale yi nga xam ne euh, xëy na sax am na ñoo xam ne amaguñu jabar loolu dina leen dal forcément que débauche bi maanaam ñu ngi koy def lu bari looy de mais dafa fekk ne xëy na c'est le stress de la vie parce que boo seetloo suñu dund bi léegi dafa bari stress stress d'abord ci wàllu liggéey mm-hmm. xale yu bari amuñu liggéey ensuite même boo liggéey ci liggéeyukaay yi pression bi bari na pression bi aussi bari na ci au niveau de la famille surtout nit ñi nga xam ne donc boo seetloo dundinu nit ñi jafe na léegi jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi am nañ ko ci seen biir famille mais am nañ ko aussi ci biir liggéeyukaay bi environnement social bi yëpp bokk na ci li nga xam ne psychologiquement dana dal affecté nit ñi bi nga xam ne mën na tax ba mu affecté ngóor a ku góor mais nekkul forcément que nit ki daal bu fekkee ne da koy daf koy dal loolu defe naa ne euh, nit ñi dañ koy xalaatal seen bopp rek waaye li ci ëpp mooy surtout environnement bi ñu dund suñu façon dundin bi ci pression bi ci nekk aussi bien professionnelle social que souvent même euh, rek environnementale mais kon euh, bu ma la déggee nga wax ak pression bi nga xamante ne ñu ngi koy dund ak àdduna bi jamono ji nu mu tëddee ndax kon euh, góor ñëpp duñ dem ba wàcc lal bu fekkee ne stress beeg pression beeg problème mu àdduna yi non góor du ñu wàcc lan ndax am na ñoo xam ne pression boobu moom peut-être mën nañ ko mën nañ ko. Euh, dominer ah dékkoo ko dominer ko ba nga xam ne du la du la du la du la ci sa wàllu néegu sëy. Mhm. mais euh, bon à côté de. maanaam pression bi ak stress bi nga xam ne mooy stressu àddina bokk na ci yeneen aussi yeneen xeetu feebar yoo xam ne mën nañ ko joxe donc yoo xam ne lu ñuy wax feebaru maladie organique yoo xam ne mu ngi ci nit ki mhm. wala euh, ba nga xam ne mën na ko tëleel ci wàllu sëy mhm. ñu gis ne docteur li nga xamante ne moo di jëm ci wàllu sexualité lu ci bëri duñ ko waxtaanee ci li nga xamante ne moom moo di euh, suñu société dañu jàpp na sax lu tabu la est-ce que tey loolu favoriser wul li nga xamante ne moo di problème yooyu nit ki di ko dundee dem ba mu jéggi dayoo. waaw parce que sexualité xëy na léegi tubaab bi moo ko indi léegi sax ba ñu toog fii di ko mën a wax tele mais fekk na am na loo xam ne traditionnel yoo xam ne loolu. lu ñu nëbboon la. Mhm. boo xam ne kenn du ko doon waxtaane euh, bokk na ci effectivement ci li nga xam ne aussi dina affecté nit ñi mooy ci éducation bi moom moo taxoon ma doon wax léegi pression familiale parce que nekk na loo xam ne dañ ko doon nëbb surtout euh, yenn euh, éducation yoo xam ne dañoo rigide nga xam ne loolu lu ñu warul waxtaane la loo xam ne boo ci tuddee tuuti sax ñu dóor la wala ñu kii la dina affecté nit ba nga xam ne parfois bu ñu dekkoo seen première néegu sëy mën na ko affecté mhm. bokk na ci aussi yoo xam ne xëy na Euh, waaw euh, nit dañ koy ragal parce que dañ niñ koy waxee bokk na ci li nga xam dangay tax bi nit ki dafay ragal te ragal boobu mën na indi yenn yenn jafe-jafe yi religieuse bu rigide boobu li nga xam ne dañ ko doon nëbb mi nga xam kenn buggu ko waxtaane bàyyi mënu ko waxtaane ak doomam yaay mënu ko waxtaane ak doomam xëy na nit ñi souvent dañuy sàcc di di di wut feneen loolu mën na bokk ci li nga xam ne psychologiquement mun na affecté nit ki bi nga xam ne seen première euh, jotaay ci néegu sëy mun na ko affecté. mun na ko mën na ko indi. indi du ñu def kon lu dul suivre benn élément boo xam te ne dem nañu seeti ab sociologue koo xamante ne xam-xamam màcc na ci wàllu dundu dundinu doomu aadama ak dundinu askan wi moom mu càmbaral ñu lu tax yenn jàngoro yi rawatina lu aju ci wàllu sexualité nit ki su koy jànkoonteel du ko nangoo siiwal muy euh, Adia Tandian. ñu taataan ko Maam Anta Ndour moo ko dékk micro feebar bi di tële ñi mu dal nag duñ ko waxtaanee benn yoon ki nga xamante ne nag moom tradipraticien la mi ngi koy dëggal. man ñi may am ci malaat ñu bëri xëy na mag ñi sax ñoom ñoo si ñëw na la ah doom de man de sama kër neexatul wala ñu wax la lool mais jeunes yi lu ne nañ fa jaar dama am hémorroïde sama tension bi ma yëngal ak dama xaw a stressé ak lu ne dañ koy wax daal mais bon communication la te nit je crois que war dañoo war a di communiqué daal. waaye ndax feebar boobu boobule du feebar ni yeneen yëpp dañ koy faj lan moo ñoom ñoo am bile di euh, jéggalu si reportage boobu nga xamante ne dafa ñëw te doxul waxtoom si biir émission bi dinañ si dellu si waat waaye li nga xamante ne moo di aviwu ki nga xamante ne moom moo di sociologue bi xam-xamam màcc ci dundinu doomu aadama moom la ñu bëgg dalal muy euh, Adia Tandian Maman Tandour euh, dénk ko microm ñu teewlu ko du ñàkk ne laata émission bi di buur dinañu dellu si waat euh, ci élément boobu euh, docteur mais ñu ñëw tey ci li nga xamante ne nee nañu li ci ëpp moom moo koy joxe bi da koy favoriser ak yooyu mais ñu bëri itam jàpp nañ ne foo bu bëri bi nga xamante ne dinañ koy fool maanaam fréquence de rapport euh, sexuel yi si ñaata la war a toll nee nañu li ni su bëree moom mooy favoriser nit ki di gaaw a wàcc lal Euh, loolu ci li ñu jàng loolu bokkul ci li nga xam ne mën na tax ba góor wàcc la donc euh, maanaam sëy yu bëri te euh, li may faral di wax nit ñi mooy amul benn règle maanaam ñu wax ne nit ki ñaata yoon la war a sëy par bés wala ñaata yoon la war a sëy par semaine amul benn règle ñaar ñu nekk ñoo xam ne ñoo nekk ci néegu sëy ñoo xam la lañu attan ñu adapté seen vie waaye amul benn règle bu ñu ñaata yoon la ko mën a def par bés wala par donc yooyu bokkul ci li nga xam ne ñun gis nañu ne loolu moom mooy favoriser euh, wàcc wàcc néeg donc euh, euh, bon am na lu bari loo xam ne xëy na c'est vrai nit ñoo ko comprendre noonu rek di ko di ko di ko moo tax bari na sax ñoo xam ne loolu def leen di dal ñu koy ragal a wax parce que dañuy ragal boo waxee ne lii moom a daal ñuy naan da nga doon foo da nga fooye sa ndaw wala da defe ni loolu moo tax mais ñun ci suñu scientifiquement bokkul ci li nga xam ne c'est pas prouvé kon euh, docteur ni ma ko waxee woon sànq dañuy dem euh, déglu Hady Tandian di sociologue maanaam ku xam-xamam màcc si dunduñu doomu aadama ñu dellu si waat euh, ci plateau bi. dafa doon lu nga xam ni ca si suñu aada ak suñu cosaan mbir yu nga xam ne dafa jëm ci wàllu góor ak jigéen ci seen wàllu biir néeg Euh, day mbir yu nga xam ni bëriwuñu luñ koy fësal donc euh, bu fekkee góor gi la dal walla jigéen gi la dal day lu nga xam ni dañ ko daan nëbb parce que lu ñuy bañ am na euh, lu bëri luñ ci doon bañ lu njëkk ñu ngi bañ noon gi jot ci maladie bi jot ci xibaar boobu ba ki ki feebar ki donc moo taxoon ñu ko doon nëbb ba nga xam ni ki koy xam rek mooy ki ko mën a faj wala sa bokk néeg wala sa xarit benn bakkan ensuite euh, li jëmee ci euh, mbiru feebar yu mel ni télé xam nga ni télé euh, musiba la donc ki muy dal non seulement dafa dafay am kerse pour nit ñi xamal ko parce que buñ ko xamalee non seulement xam nga du point de vue social day am lu bëri lu muy ñàkk par exemple ku télé dañ lay ne ah warul am jabar ku télé du am doom ku télé donc day am kerse bu bëri ci kanamu yeneen moromam moromu góor yi dañ koy nëbb duñ ko nangu euh, fësal duñ ko nangu siiwal ba euh, yàlla def ñu tase ki ko mën a faj n'est-ce pas wala ñu jot soog ci am saafara donc loolu rek mooyoo tax donc mbir yu mel noonu daaw ñu ko fësal euh, kerse googu bon lu ñuy wax tabu ci français man dañu koy ne lu ñu ëmb kerse la dañ koy ëmb kerse dañ koy ëmb sutura même ci nu ñuy waxee booy booy tudd cër yooyu doo doo doo tudd seen tour dafa am beneen tur bu ñu leen di wax boo ba ñëpp comprendre donc dañ koy ëmb ci ci kersa mais da ngay gis ne euh, fi jamono bi toll ah euh, nit ñi euh, ubbeeku na ensuite bëri na nit ki am na léegi possibilité yu bëri yu nga xam ni mën na jóg dem ci barab buñ koy fajee te ñëpp ñu bëri duñ ko yëg waaw loolu léegi bëri na parce que ñii di faj alhamdulilah bëri na hôpital yi bëri na hôpital euh, médecin spécialiste yi bëri na donc ki nga xam ni day souffrir mbir moomu mun na jógal boppam xam adresse bu muy jëm ensuite wala jot xibaar ne ku euh, ki euh, feebar bi ko daal diw moo koy faj diw bi fii la nekk fële la nekk donc mun na jóg ci boppam te du tàggu kenn du yëgal kenn mu dem directement ci fajkat boobu donc dañuy gis ne kerse googu dañul mais ñoo am yeneen possibilité Euh, faj seen soxla te fekk ñaar nit wala ñett nit duñ ko yëg. mu doon Adia Tandian di sociologue euh, kiy tataan euh, xalaatam di Maman ñu koy jaajëfal docteur mooy li doon waxtaanee sànq rek mais ndax jàngoro goo xamante ne tey danga koy nëbb ndax dina faju waaw jàngoro bi ñuy nëb moom boo koy nëbb du faju faw te defe naa ne bari na nag ñoo xam ne ñu ngi koy souffrir te duñ ko jot a wax. des fois sax ci consultation bi léeg-léeg nga dem ba nga xam ne yow yaay découvrir ne kii am na lu muy nëbb ci comportement am nga door ko ko wax pour mu mën a pour mën cee donc euh, nañ xam ne donc lu lu ñu mën a faj la donc yu bëri mën nañ ko faj parce que jumtukaay léegi bëri na bëri waay yoo xam ne presque xeetu télé bu nekk presque am na fajam mhm. kon nañ nit ñi xam ne loolu jarul di nëbbatu xëy na peut-être mën nga nëbbatu sa entourage mais dem ci bérébu fajukaay yi nga xam ne spécialiste yaa ngi foofu ñu dimbali la mën na am peut-être yàlla def di dara ba télé boobu mu bàyyi la mhm. ndax mais ñu bëri kon dañoo jàpp ne télé duñ ko faj muy information télé ci forme bu mu munti ñëwee am na ay traitement médicamenteux yoo xam te ne mun na ko faj waaw parce que télé dafa am euh, ay degré donc parce que euh, télé léeg-léeg nit ñi wax ne par exemple mhm. yoo xam ne kooku mënul dara mhm. donc nit mën na ko judduwaale mën na la dab mais am na ñoo xam ne ngoro bi dafa wàññeeku rek mhm. da nga xam ne bon xëy na du bëgg du mel ni ñu ñu bëggoon da nga xam ne xëy na du mën a satisfaire ki nga xam ne moom mooy partenaire am donc yooyu yëpp ay xeetu yoo xam ne euh, day am te traitement boobu am na yoo xam ne bu la ko joxee rek yàlla mën na def loolu yëpp ku nekk am satisfaction diggante ku góor ki ak ku jigéen ki yëpp. Mhm. mais tey ki nga xamante ne dañ ko daf ko judduwaale ndax kooku mën na wér. oui sa dépend waaw am na yoo xam ne xëy na bu fekkee nit ki daf ko judduwaale maanaam muy formation wala muy ay euh, problème hormonal wala muy yoo xam ne xëy na euh, normaalut donc am na yoo xam ne xëy na duñ ko mën a faj ba mu wér mais am na ay jumtukaay yoo xam ne buñ ko ko defalalee dana mën a sëy xëy na peut-être il sera dépendant des médicaments mais mën nañ ko defaral loo xam ne dina mën a sëy te du tax mu mën a satisfaire mën na tax satisfaire am. Euh, mu satisfaire ki nga xamante ne moo di partenaire am point boobu sax euh, ci la ñuy amal ab taxaw seetlu ndax euh, dañu am témoignage yombul woon nag ñu am ko. koo xamante ne day dund jàngoro googu comme li ma wax rek tabu dafa am moom li mu expliqué mooy daf ko judduwaale ba tey am na problème financièrement il est bien assis waaye mënula am soxna. ndax li nga xamante ne bi mu juddoo ba léegi loolu lay dund muy benn mala dund li mel Ndiaga Fall moo demoon taataan xalaat wi ñu teewlu témoignage yu ki nga xamante ne ab la moom lañ naan yoon waaw nan la la dalaa dab wala judduwaale la. daf ma daf judduwaale waaye. mu ngi ko yéex a yéex a yéex a xam ndax ndax mu judduwaale la. Mm-hmm. ndax euh, damaa doon bëgganteeg sama benn doomu bàjjen. di sëy il faut euh, yi gisante waxtu. léegi bi ñu waxtaanee mu benn doomu bàjjen. man nag ma bëggoon ko lool ma bëgg ma lool léegi bu demee nag ba ci buum bi di sëy yàlla def mu sëy man daal laa doon xam ne sax maanaam jour bi ñu la koy jox waaw jour bi ñu ma koy jox moom sax sama bàjjen yi dañ maa naan ma defal lu kaaw ma jël ko mais boobu daal dem naa moom xam naa ni li ñuy dañuy wër si góor daal nekk si man mm-hmm. moom nag dem na ba si biir suturaal na moom waaye nag am yoo xam ne du wéy moom ma teel ko wax sama bopp moom tamit mu xam loolu si man suturaal ma fi mu nekk ni yàlla def waaye maa ngi koy dégg si jàmm te ñu may dégg si jàmm lan moo la ñaan baat waxtaan noonu nañ commencé woon nañu waxtaan ci waxtaanu ñaan baat mhm. waaye daal damaa dem ba si biir ma xam ne ni mu toog ma toog guddi jot ma yee mu jóg toog waxtaan ak man ma ne ko baat bi nga may ñaan lu ma la bëgg jox la ndax sama mbokk nga sama man nag balaa ma may wax loo xam ne ci yow nga suturaal ma nga suturaal ma ba samay mbokk keneen ba nga xam mu doon loo xam ne maak yow la ak la ak yonent la dinaa la may baat euh, feebar bi euh, avant maye baat bi ndax euh, faj nga ko doon ah, nga ko jéem a faj dama ko dama ko doon def sutura dama ko doon ko doon nëbb. dama ko doon dama ko doon nëbb daal waaye damaa def ba nga xam ne loolu kenn mënu koo nëbb kenn mënu koo nëbb. fi nekk nii alhamdulilah maa ngi maa ngi liggéey maa ngi am xaalis am naa teraanga mais daal wax dëgg fa yàlla soxna daal moom nekkatul sama xel. ba léegi eh, ci sutura moo tax demoo ba léegi faju ji wala. waaw ci sutura ndax su ma gisoon koo xam ne de mën na maa woo ci sutura teg ma ci yoon boo xam ne dina dina dina ma faj lu ma laaj lu ma laaj incha allah daf ma jox waaw euh, mais euh, boo toogee kenn xamul sa feebar euh, ndax nit dina la woon ndax yow doo jéem a def démarche dem ci hôpitaux yi wala maaman yi waaw maaman yi jéem naa ci jéem naa ci maaman yi dem naa bu son daal waaye damaa dem ba nga xam ne rek ma ne daal fi mu nekk nii daal baal ma muñ rek góorgóorlu di liggéey di jàppale sama yaram te sama yaay ko jàppale si leneen pour ko soxna mais daal euh, ci avant ngay takk jabar ndax daan nga sentir ni yow mi doo góor. avant may takk jabar daan naa daan mbir moo xam ne daal man daan naa tëdd bu guddi di sentir di sentir sama kanam loo xam ne. Hmm. Euh, musuma daaw nga yëg lu jéggi daal moo mm. xam ne franchement ndax avant daan nga yëg sa bopp sama bopp de mosuma ci yëg mosuma mosuma mosuma ko mosuma ci yëg benn plaisir ndax daan nga ci daan nga foo daan nga foowee ay coro ay gel waaw daan naa daan ay ay ay coro moom mm. mm. mais sama sama sama ay mag mm-hmm. waaw di di di nekk ak ñoom di jubal. daan naa nekk nag fóonanteeg ñoom di defanteeg ñoom lu ne waaye daal saa bu ñu jëlee saa bu jëlee loxoom teg ko sama kaw rek man du bu boobaa daal. doo yëg dara du ma yëg dara. Mm-hmm. waaw waaye plaisir dina dugg sama xol. mais du ci egg carrément. te mm-hmm. euh, ko sa soxna sa yaay ndax na ko. sama yaay boo na ma bés laaj ma léegi nag moo tax fi mu nekk jël soxna ci guddi yi ñu toll ah, ma divorcé ba pare parce que am na ku doon ñëw kër ba ñu ngoroo man moom ba si kanam damaa ndax wàllu ngoro googu ginnaaw wàllu fóonante di nga ci am plaisir ndax yaa ngi wut ay coro wala pare wax nga pour wut jabar fi mu nekk nii daal man sama jàngoro moom su ma gisee ko ma ko fajal. incha allah rabbi bu ma yàlla jàppalee dina ko soxna. parce que tamit mënoo takk soxna andi ko ci kër gi. li mu bëgg doo ko defal kon balaa kàddaa man daal ma toog ñu rek di tàllal sama loxo yàlla ak di tàllal sama loxo ñoo xam ne am nañ ci xam-xam ñu ma si mën a jàppalee ba ma xool nan laay def tam. docteur muy euh, témoignage boo xamante ne témoignage bu métti la ndax euh, góor defe naa su demee ba wàcc lal dara desatul ci li nga xamante ne mooy am amam wala moomeelam su demee ba munul am soxna mënul am li nga xamante ne moom moo di doom métti na tey ban diagnostic nga def ci waa ji ndax moom li muy xam xamle moo di ne daf ko judduwaale daanul sentir boppam plaisir bi mu doon sentir yëpp ci xolam rek la waaw loolu dina métti pour ma ne la diagnostic la ensuite parce que euh, nit la ko xam ne gisaguñ ko mais Euh, li mu ko mën a digtal daal mooy bu mu découragé ndax euh, nee naa la euh, bareetul léegi façon xeetu feebar yoo xam ne xëy na ci wàllu sëy ko fañ mun ko faj donc li mu koy dégtal daal mooy mu jéem a rapproché wu ak bon urologue yi bari nañ fi ñu bari ñoo xam ne xëy na buñ ko gisee examiner ko defal ko ay bilan xëy na ñu mun mën na rek loo xam ne xëy na sax ba neexu kii naqarewul faj ñu mun ko faj mu mun a. mu nëbbatu bi rek bu nëbbatu bi mooy problème bi. Mhm. te na dem euh, dem consultation ci spécialiste yi. Euh, je yaakaar naa ne bu demee rek dina am benn jàngo benn saafara boo xam ne nañ ko ko mën a proposer. Mhm. ñuy fàttali euh, ñi nga xamante ne ñoo di téléspectateur Walfadjri si seen émission weer weer lee mun ngeen woote ci 88 628 99 99. posé seen i question ki nga xamante ne moom moo di docteur Issa Labo xam-xamam màcc ca fànn bi nga xamante ne tey moom la ñuy waxtaanee mooy euh, góor ñi nga xamante ne dañoo wàcc lal ñu rafetal docteur ñu bëri jàpp ne itam li nga xamante ne moom moo koy sooke maanaam li koy favoriser li ci ëpp bokk na ci ci utilisation aphrodisiaque yi gis nañu nag léegi soxna yi sax suñuy togg ña ngay def fi aphrodisiaque ci seen togg pour gën a yëg seen ngóorub euh, borom kër mm-hmm. ndax jàpp nga ne ponk boobu itam bokk na tax euh, xale góor yi di teel a wàcc laal euh, loolu aussi euh, bëri na ci euh, yu bëri yoo xam ne dañuy wax aphrodisiaque la yoo xam ne xëy na dafay yokku ngóora yoo xam ne scientifique donc benn produit yu bari ah yoo xam ne ñaa ngi koy utiliser dafa xaw a mel ni rek placebo peut-être dafay dalal xelu nit ñi loolu moo lay won na ci ci ci ci xeetu garab yu bëri ñuy utiliser scientifiquement prouvé wuñ ko dafay am action ci euh, ngóor a góor mais euh, bu fekkee ne yu bëri ci télé yi télé yoo xam ne c'est psychologique d'origine psychologique maanaam stress bi moo koy def nit ki boo ko ko joxee rek xelam dina dal dal boo xam ne xëy na dina déclencher loo xam ne euh, mu defee ne xëy na garab bi la mel mais bëri na ci aphrodisiaque yu ñuy wax ñu koy naan wala ñu koy lekk yoo xam ne scientifiquement c'est pas prouvé que am na action ci ci ci mais. mais est-ce kon amul méfait. te moom moo di sexualité ku góor ki euh, parce que bu fekkee ne du agir foofu dina rare pour mu mën a indi yeneen jafe-jafe foofu parce que amul action ci wàllu ngóora donc mm. bu fekkee ne amu fa action mënumaa wax ne am na ci conséquence xëy na peut-être am na ay études yoo xam ne war nañ ko ci mëne pour que ñu mën a xool yenn xeetu mais tey am na yoo xamante ne ñu ngi koy jëlee fi nga xamante ne moom moo di biti réew mhm. di ko fi indi lu ci bëri mi ngi jóge Inde mi ngi jóge Chine ñu ko fi indi di ko jaay nit ñi naan leen aphrodisiaque la am na des sortes de café yi ñuy wax ñi ngi naan gingembre peut-être gingembre produit bu naturel la mhm. mais am na yeneen yoo xamante ne c'est des produits yoo xamante ne ña ko defar ndax am na kenn ku nekk ci ligne bi kuñ may euh, signaler salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. soxna allo waaw soxna si. salaamaaleykum sëñ bi. waaw. ñu ngi lay nuyu di la dalal euh, ci plateau weer weerle am laaj booy jagleel euh, suñu docteur. waaw maa ngi leen fay di rafetlu émission bi bu baax. jërëjëf. di wax ne yàkkamti woon nañ ko. jërëjëf. caatu Walf la lañ ma gën a xamee quoi bu may wootee. Mhm. yokkal baat bi tuuti. waaw maa ngi laaj sëñ bi ne ko. est-ce que mu baal ma quoi ndax mën nañu leeral ki kii sëy minimum gën nga gàtt ñaa ñaata seconde la war a am pour pour mu mu yëg boppam quoi mu aussi ak euh, day awra awra góor buy metti léegi-léegi lan moo koy waral mhm. ñaari question yooyu laa amoon jërëjëf euh, docteur ma tuuti bala nga tontu ma àgg si télé bi dégg nga waa jërëjëf ñu ngi lay may euh, quelque minutes nga àgg mu doog laa tontu ñu baamuwaat euh, kon li nga xamante ne moom docteur moo di laajam mu aju rek ci ne fréquence li nga xamante ne moo di rapport bu normal la laata muy àgg fi nga xamante ne moom la góor di àgg ak awra góor boo xamante ne itam day faral di métti ñu may ko quelques minutes mu àgg mais avant ñu koy tontu ñu continuer rek ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan bi mooy c'est d'ordre chimique yoo xamante ne ñu ngi koy importer mu ne xuus léegi ci dëkk bi xale yu góor yëpp di ko jëfandikoo ngir mën a yëg seen bopp. waaw euh, bari na ci loo xam ne nag xëy na ñun xamuñu ko parce que aphrodisiaque yu bari yoo xam ne da nga koy dégg ci yenn télé yi ñu koy wax jóge na Chine. kenn xamul composition chimique bi xamuñu ban principe actif la am xamuñu lan lay def ci góor peut-être que mën na xëy sax mu am action ci ngóora mais mën na am ay effet secondaires yooyu yëpp nag di produit yoo xam ni jàngataguñ ko pour mën a xam lan mooy composition bi ak lan la mën a def ci nit donc dana jafe lool pour ma ñu mën cee wax mais li ma ci mën a wax mooy yenn yi souvent aussi bon nit ñi euh, euh, xale yu góor yi euh, dañuy créer seen bopp problème ndax entre eux ku nekk di jaay guerrier mhm. yenn yi dañ koy waxanteel yoo xam ne xëy na yooyu yëpp du loolu donc yenn yi configuration la ci seen seen xel mais nañu xam ne euh, balaa ngay mën a wax ne man sama bopp nguur gi dafa wàññeeku fekk yow da nga yor soxna xëy na soxna si bu fekkee ne li ngay def mu ngi koy mu ngi koy satisfaire mu ngi ciy am banneex te amul loo xam ne tuut ñaax na kii na ñaxtu na ko ci. Mhm. xaw ma lan moo tax nga bëgg a ut performance. Mhm. parce que yenn performance yi aussi amul benn njëriñ. Mhm. mais euh, effectivement société bi dafa demee noo xam ne avec internet bi ak euh, revue yu bari yoo xam ne ñu ñu ngi koy liir dañ ciy def ay ay ay yoo xam ne bokku ci mais malheureusement nag danay dem te doo ko jot mukk day finir par te nga defe ne xëy na. Euh, différent nga wala am na loo xam ne lu moo la manqué fekk dara manqué wu la. mais am na ñoo xamante ne docteur dañu dem ba dañu euh, dépendre ci li nga xamante ne moom moo di produit yooyu. góor ñu bëri tey laataa ñuy séq ak seen soxna. Mhm. dañu foog ne il faut ñu jël produit yooyu ngir mën a àgg fi nga xamante ne la bëgg. mais li ñu waxuloon sànq mooy xam nga wax naa la euh, tele moom bari na ay causes. bari na mhm. loo xam ne moo koy indi. donc mhm. ci li ñu njëkkee mooy yi nga xam ne mooy stress de la vie donc environnement bi. mais am na yenn causes yoo xam ne. Euh, ci nit ki la nekk feebar la bu nekk ci moom boo xam ne dana soxla euh, ñu koy yokkal doole tuuti mhm. ba bari dafa am jabet mhm. jabet boo xam ne dafa yàgg mhm. jabet bu yàgg jabet nekk na ci feebar yoo xam ñoo gën a indi télé ci góor voilà ku yor loolu feebar boo xam ne jabet bi dem na évolution boo xam ne am na lu mu déranger ci sa yaram maanaam ci sidit maanaam bu mu nekkee siditu deret bi wala sidit yi nga xam ne mooy siditu tu yaram uh-huh. ba nga xam ne am na lu mu ci gaañ ba wàññi ko ci dana wàññi ngóor mm-hmm. kooku nag euh, euh, il faut que ñu yokkal ko doole parce que li xes ba yàqu yàqu na ba pare enfin yàqu wala wàññeeku na ba pare donc ñooñu soxla nañu ñu leen di yokkal doole mm-hmm. am na ñeneen ñoo xam ne xëy na aussi parce que euh, am na ñoo yenn télé yoo xam ne ñun ñoo koy causé. ci naka euh, opération yoo xam ne buñ koy def dafa am risque pour nga laal siddit yi nga xam ne ñoo yor ngóor ci góor nga xam ne loolu d'ailleurs balaa ñu lay opérer loolu yëpp dañ la koy wax ne loolu mën na la dal. Mhm. parce que ci conséquence yi la bokk. kon genre yenn genre opération si yenn jàngoro. waaw yenn cancer de prostate yi wala yenn cancer de vessie yi yooyu. Mhm. bu ñu leen di opérer dafa bokk ci conséquence yi complications yi. ngóor gi wàññeeku. Mhm. ñooñu aussi bu fekkee dal na leen am na ñoo xam ne mën nañu récupérer complètement am na ñoo xam ne seen récupération bi du doy. Mhm. il faut que ñu yokkal leen doole. mais kon euh, doole googu ngi leen di yokkal du doon aphrodisiaque yi ñuy tudd. mais sera d'ordre médicamenteux. la yoo xam ne mhm. nit ñi testé nañ leen xam na te xam nañ seen effet secondaire xam na nu ko mën a utiliser ak rythme bi ñu koy utiliser dinañ ko tàggat ba ñoom seen bopp sax mun nañ leen ko defaral mën mhm. nañ ko defaral seen bopp tey auditeur bi nga xamante ne téléspectateur bi nga xamante ne kon woote na léegi di laajte mhm. li nga xamante ne mooy durée relation bu normal si ñaata la toll ak awra góor boo xamante ne day faral di métti waaw nee nañu pour euh, góor goo xam ne dafa commencé sëy laata mu commencé ak balaa nga xam ne dina gis boppam maanaam mu yéeg ne mu ngi mu ngi. Euh, man bi génn na man na. Mm-hmm. diggante ñetti minutes ba cinq minutes loolu bu ko amee. nekk na rapport boo xam ne mën nañu considérer que normal na mm-hmm. xëy na nag am na ñoo xam ne mën nañu dem ba weesu loolu li ñu li ñu kii kay li ñuy wax éjaculation boo xam ne dafay gaaw mooy boo xam ne weesuwul ñetti minutes. Mhm. maanaam yaa ngi dugg rek mu mu sotteeku. Mhm. yooyu mooy éjaculation précoce mais diggante 3 minutes ba ci 5 minutes ba lu ko mën a weesu. bu ko nit amee rek mën nañu wax ne rapport sexuel boobu am na temps bu normal mhm. maintenant am ma euh, awra yi muy wax ne foofu mooy métti parce que awra góor aussi dafa bari enfin bariwul mais euh, ban cër la voilà euh, ndax nen yi lay wax bi lay wax bu fekkee ne ci nen yi la aussi loolu li mën a tax mu métti bari na ndax mën na am infection mën na am dafa gaañu mën na am lenn ak lenn parce que bu fekkee naal dafay nekk koo xam ne dafa am euh, méttit ci awra bu ngi a yàgg ci moom te xamul lan la nekk na dem consultation bu boobaa bu ñu ko xoolee bu fekkee ne ci genn bi la nekk dinañ ko xam bu fekkee ne ci nen yi la nekk dinañ ko xam et lu ci war ñu mën ko ko wax am na loo xam ne lu bari mën nañ ko faj il faut mu consulter ba pare ñu jël euh, keneen ki nga xamante ne moom moo nekk ci ligne bi ma wax ne émission bi itam euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo toog seen kër seetaan moom moo ko tax a jóg mu di wér wérle niñ ko dippee rek waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa wal fajiri ca kaw ca kanam ci la gën a alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf. sëñ bi tur naka la fooy wootee. El Hadj Ndiaye la dina woowee Kaolack waaw ñu ngi lay déglu El Hadj bu fekkee ne am na laaj booy jagleel euh, suñu docteur bi. waaw euh, cant ak euh, cant ngërëm rek laay dolli ci yéen émission yu mel ni mat. yaatal la yu mat di bëris la ndax si ñëpp a koy too mhm. nit jafe-jafe boo mën a am bu ci wér-gi-yaram xamee rek am nga lu bari mhm. waaye bu wér-gi-yaram amul rek dafay mel ni amugoo dara mhm. te coono yi jaam yàlla yi yittoo dafa bari si wér-gi-yaram si xeetu feebar si xeetu jaxale bu koy si yàkkamti mu wér da ngay aw yoon bay faj sax waaye da ngay yàkkamti ba far jëlaat beneen yoon. Mm-hmm. jërëjëf euh, sëñ bi doon wootee ca Kaolack di laaj ñu koy euh, jaajëfal ci euh, contribution am ñu leen di xaar yéen ñi am ay laaj yoo leen jagleel docteur Issa Labo di urologue nekk ci hôpital général bu Grand Yoff si seen émission weer weerle ci 88 628 99 99 114 laata loolu ñu wéy rek docteur ci waxtaan wi am na beneen point boo xamante ne itam nañ ko soulever mais laata ñu ciy agsi dañuy dem suivre reportage bi nga xamante ne defal nañ ñu ko. ko di euh, Seynabou nga xamante ne moom moo di euh, tradipraticien yi nga xamante ne tey jug nañu taxaw ne télé dañ koy faj defe naa commerce tey boo xamante ne bu florissant la ñu teewlu ko feebar bi di tële ñi mu dal nag duñ ko waxtaanee benn yoon ki nga xamante ne nag moom tradipraticien la mi ngi koy dëggal. man ñi may am ci malaat ñu bëri. xëy na mag ñi sax ñoom ñoo siy ñëw ne la ah doom de man de sama kër neexatul wala ñu wax la lool mais jeunes yi lu ne dinañ fa jaar dama am hémorroïde ak sama tension be ma yëngal ak dama xaw a stressé ak lu ne dañ koy wax daal mais bon communication la te nit dañoo war a di communiquer daal. waaye ndax feebar boobule du feebar yeneen yëpp dañ koy faj lan moo waral kon ñi nga xam ne ñoom ñoo am bile feebar duñ ko waxtaanee. xam nga sénégalais maanaam yàlla daf ñoo bindee nitu tiitër ñu baal ma. mais ñu si bëri yoo nekk ay nit Twitter nit ñi pour ñu wàcc wax leen li nga am na feebar yoo xam sax dañuy dañ koy deewaale te duñu ko wax mais dëgg naa mag ñu baax ñu ne feebar boo bëggee mu faj da nga koy da boo bëggee mu wér da koy dang nga koy weer. bu ñu sukkandikoo ba tey ci kàddu tradipraticien bi moom xamle na ni. lii di télé mi ngi dal jamono ji ay ndaw yu bëri li ko waral nag nee na du leen lu dul ay safal yu ñuy def ci sunuy ci majeure partie jeunes yi sax ñu bëri télé xaw na leen commencé jàpp parce que am na produit yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy utiliser ñu baal ma mais produit yoo xam te ñu ngi koy def ci cin yi yoo xam te tey xar boo ko joxee dégg moom nga koy tàppee ñu baal ma ci ci ci ci kàddu yi produit yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy utiliser te xaw ma nu mu demee noonu. góor gu nag mën na dem ba yàq li nga xamante ne moo di dundinam moom ak soxnaam. mën na baale ah waaye sëy yu bëri bu dëngee tey maanaam looloo lu ci bëri loolu am na ci wàll ndax ñu bëri tey jii soo leen gisee seen sëy neexul parce que côté boobu tamit dañ koo négliger mais boo xoolee ci biir biir lu ci am solo la moo tax nit ñi tamit bu fekkee dañoo feebar dañoo war faju comme góor comme jigéen mais lu si bëri rek bu ñàkk jigéen mais la góor ñi tamit war nañoo xool seen bopp parce que dañoo gis xam dañ naan ko sa jabar sa jabar la mu dem takkaat keneen gis nañ ko fii lu bëri kon daal faju ci daal da ci am solo lool. mbirum télé nag di feebar boo xam ne a waxtaanee ko jafe na lool ñi nga xamante ne ñoom lay faral di dal nag. dañuy dund ak moom ànd ak tekkaaral ba sax dem ba faj bi day doon loo xam ne day xaw a jafe. soxna bu njaay ñu koy jaajëfal ci reportage boobu naam tradipraticien bi duggul au fond ci anam gi nga xamante ne moom moom lay jëf ndax nga ne ñoom ci domaine boobu ñuy yëngu tey mën nañu am li xamante ne moom moo di résultat ci fànn boobu bon euh, tradipraticiens yi mënuma wax seen affaire ndax euh, xam nga euh, wàllu docteur gépp xeetu médicament boo xam ne ñu ngi koy jox nit ñi dafa am fu ñu koy jaarale. ak mhm. essai yoo xam ne dañ koy def. Mhm. xam lan mooy produit bi lan mooy composition bi fan lay jaar wala bu demee lan lay def ak fan lay génne ak lan la mën a def ci nit ki bu fekkee ne yaa ngi koy jël lu bari ay at yi at yi at donc loolu muy loo xam ne dañ koy jàngat mën ko xam. xam effet secondaire yi xam loolu maintenant tradipraticiens yi suñu problème ak euh, problème mooy que seen médicaments yi ñuy joxe xamuñu ban composition la ensuite euh, yan dose lañ koy joxe lan mooy dose efficace bi lan mooy dose toxique bi ak lan mooy dose bi ensuite bu duggee lan lay def ak fan lay génne mm-hmm. tant que ñun munuñu nit ñi mënuñu toog ba seen garab yooyu xeetu garab yooyu nga xam ne ni jël nañ ko ñu mën ko analyser au point de vue pharmacologique ñun duñ ci dañ ciy màndu mënuñ ciy wax Mm. mënuma wax kenn ne nag bul dem ci ñoom mënuma leen wax ne dem leen ci ñoom mais li ma ci kii daal mooy loolu laa ci ragal ndax dañ ci am ay cas yoo xam ne yu bari yoo xam dañ fay jaar mais mujjee am ay jàll yoo xam ne xëy na sax définitivement seen ngóor a dafay yàqu. Mm-hmm. ci ay problème dosage bu am importance mi ngi jëm ci wàllub alimentation bi mhm. mu jàpp ne alimentation bi aussi produit yenn produit chimique yi nga xamante ni ñu koy utiliser mhm. tax na tey xale yu góor yu bëri wàcc lal pour bañ a tudd yenn yi mais ci yenn dëkk yi soo demee ngir tàpp seen ay mala mhm. dañuy utiliser euh, euh, cafe euh, cafka yooyu ñuy dolli ci cin waaw bari na nekkul sax bouillon yi rek bari na ci la nga xam ne ñu ngi koy dund di ko lekk baaxul ndax Euh, feebaru sëy boobu ngay wax muy télé bi. Mhm. wax naa sànq ne problème social wax naa problème mu diabète wax naa problème yoo xam ne xëy na problème traumatique la mooy chirurgie wala les femmes mu am ñoo gaañu. hypertension artérielle rek dafay wàññi ngóor. Mhm. léegi tout ce loo xam ne nag mën na indi hypertension artérielle mooy lépp lu ñuy lekk yoo xam ne day indi maladie cardiovasculaire. bokk na ci bouillon yi bokk na ci graisse yi bokk na ci euh, cigarette bi bokk na ci yëpp yooyu yëpp. ay xeetu ñam la loo xam ne ay xeetu jëfandikoo yoo xam ne dafay am lu muy def ci sa yaram heure boo xamee ne am nga problème cardiovasculaire à long terme plus ou moins long terme dafay am conséquence ci sa ngóor mm-hmm. ndax deret rek mooy dugg ci kanamu góor pour mu am érection bu fekkee ne nag deret boobuy surculer am na gàllankoor ci ni muy surculer ci sa yaram mën na indi jafe-jafe ci affaire u sëy mm-hmm. euh, sidit yi aussi am yoo xam ne ils sont toxiques parfois même Euh, insuffisant rénaux yi ñi nga xam ne dañu am insuffisance rénale nekk ci biir jalis yooyu yëpp ay xeetu feebar la yoo xam ne lépp lu ñuy lekk wala lu ñuy jëfandikoo ci àddina bi barina ci ñoom ñoo koy indi mhm. heure bu ñu ko indee nag conséquence bi mooy toujours dafay àndaale ak Mhm. dysfonctionnement érectile. mais tey fréquence consultation yi ci fànn jàngoro yooyu rawatina ci jàngoro néegu sëy yi ndax instant bi bëri na comme ni ñu koy waxee rek ci biir réew mi làqatu bi dafa bëri. Euh, bëri na mais je trouve que aussi c'est sous-évalué maanaam euh, defe naa ne du ñu gis ñëpp parce que comme ni ñu koy waxee bëri na ci ñoo xam ne dañ koy dañ koy nëbb loo xam ne mënuñu ko waxtaane euh, ñenn ñi sax seen jabar ñoo leen di indi. donc bëri na ci suñu consultation et li ci gën a yéeme mooy comme ni ñu ko waxee sànq ci départ bi bëri ci ay xale yu xaw yoo xam ne sax amaguñu jabar commencé am yooyu yooyu nag c'est le stress de la vie donc boo seetloo fi mu nekk ni en tout cas ci suñu consultation sama consultation bëri na boo jëlee téeméeri nit peut-être que dix yi problème boobu moo leen indi. mais wax ko ñëw isam duñ ko wax. bu ñuy ñëw am na ñoo xam ne ñu ñëw jaar ci carrément loolu moo leen di am na ñoo xam ne ñoom comme ni tradi praticien wax léegi di wëraale di wax leneen ak leneen lu ci bokkul ba nga xam ne kii am na leneen loo xam ne mooy boo ko ci càmbar ci ci wàllu boobu rek mu door laa wax ne loolu moom a indi. en fait mhm. mais tey nemmeeku nañu itam. mooy euh, ni nga ko waxee mën na nekk d'ordre psychologique maanaam euh, ci néegu sëy bi itam su xatee. jëkkër ak jabar amul communication wala amul kooku kooku itam mun na indi problème li nga xamante ne moom moo di euh, dysfonctionnement bi est-ce que du foofu la rôlu psychologue bi ak rôlu sexologue bi di dugg si waaw euh, rôlu psychologue bi parce que traitement euh, waaru kii dysfonctionnement érectile moom maanaam télé ñaar yëpp la ëmb mhm. parce que nit ki aussi boo travaayul ci xelam bépp boo koy jox garab mën na am ñàkk am efficacité ñu jël ki ci ligne bi docteur point boobu laataa ñuy dellu si waat asalaamaaleykum waaleykum salaam. sëñ bi tur bi naka la fooy wootee. man. waa di wootee. HLM 5. waaw ñu ngi lay dalal jàmm ci sa émission weer weerle di taataan xalaat wi. dama bëggoon laaj docteur euh, euh, différence entre éjaculation précoce ak impuissance sexuelle la mooy ndax benn benn feebar la wala wala wala ñaari feebar yu kii yu bokkul la. Mhm. deuxième question bi aussi dama ko bëgg laaj ndax éjaculation précoce mën na koo faj ba mu wér. Mhm. moom dañ ci ñëw. waaw wala am na garab yu garab yu baax si moom waxaan jëfandikoo de dootu la dina wér waaw jërëjëf dina la tontu léegi léegi ñu may la rek nga teg téléphone bi mën a déglu tontu bi nga xamante ne docteur Issa Labou dina la ko jagleel nga laaj bi nga xamante ne moom laaj na ko mhm. mu aju ci nee na ndax dysfonctionnement ak éjaculation précoce ñoom ñoo yem li nga xamante ne moom moo di feebar ak éjaculation précoce ndax mën nañ ko faj. waaw dafa fekk ne euh, ci ñun euh, ci sémantique mën nañu wax ne problème dysfonctionnement érectile xaw na mun a wuute ak problème trouble de l'éjaculation mm-hmm. parce que nit a ngi fii di am problème euh, bañ am problème sexuel mais du mën a éjaculer donc ñaari ñaari yëf yu yu wuute la impuissance mooy ki nga xam ne kanamam mënul jóg mm-hmm. mais éjaculation nag bu fekkee ne dëgër comme ni mu waree mais buy sëy muy gaaw a gis boppam. Mhm. donc loolu mooy éjaculation précoce comme ni ma ko waxoon léegi bu fekkee ne tolluwul ci lu mat ñetti minutes mën nañu wax ne éjaculation bu précoce na. Mhm. éjaculation précoce aussi et c'est vrai am na euh, am na traitement bu ci njëkk mooy traitement psychologique parce que am na yenn xeetu euh, traitement yoo xam ne xëy na ci waxtaan wala ci en tout cas ci yenn digtal yi ñu mën la jox ay conseils yoo xam ne xëy na mën nañu dem ba loolu bu mu bàyyi ci yow. Mm-hmm. am na aussi yenn xeetu garab yoo xam ne bu fekkee ne dafay persister te fekk lépp lu ñu la wax ci ay conseils wala ci ay ay kii taxul mu dañ mën nañu am ay yenn xeetu médicament yoo xam nañ la ko jox pour mu. bi ndax euh, bari na ci souvent nag euh, léeg-léeg nit ñi ñoo yàkkamte rek ndax nit ki nga xam ne xëy na xale bu góor la dafay door a dugg ci néegu sëy mënul nuroo ak ki nga xam ne xëy na am na ci 10 ans 20 ans yëpp donc mhm. c'est forcément bu njëkk bi mën na am xëy na euh, ni mu buggee mu yàggee du mën a yàggee noonu parce que d'abord il faut mu jàng yaramam il faut ki mu partenaire bi mu xam aussi il faut ñu jàngante xamante ba nga xam ne loolu mën na tax dimbale leen comme ni nga wax communication bi bu amee mën na am mu dimbale leen ba loolu yëpp mën na dàkk mais effectivement am uh-huh. am na traitement ay conseil mais ensuite am na ay traitement médical bu fekkee ne conseil yi ko jox taxul mu comme li ñuy wax rek c'est en forgeant kon doon waxtaan ak benn urologue moo xamal ma ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo di xale yu góor yi itam seen fréquence su rapport day mel ni ñuy entraîner rek pour mën a développer li nga xamante ne moo di muscle bi. Mhm. Euh, waaw entraînement la parce que aussi euh, euh éjaculation xawma ma euh, rapport sexuel maanaam sëy ça fait intervenir de muscles donc comme niñ ko waxee souvent. Euh, que buy sëy lu bari day tax ba nga mën a télé yooyu ñun ta en tout cas jàngaguma foo xam ne loolu am na ci mais li ma ci mën wax nit ñi daal mooy nañu xam ne daal léfi du performance du loo xam ne dañu la ci jox médaille wala ñu jox te leen nit yi def li nga xam ne moom ngay attan adapté ko partenaire ak sa environnement je pense que loolu boo koy def rek loolu yu bëri du la dal Mhm. tey am na question yoo xamante ne mi ngi bawoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di suñuy euh, internet kii di wuyoo ci turu Serigne Modou jaañ nee na damay laaj ndax télé boo judduwaalee mën nañ koo faj mooy comme témoignage suñu waa ji nga xamante ne euh, dégtal nañ leen ko sànq ñu dellu si waat si rek ngir tontu ko. waaw bu fekkee ne dafa télé daf ko judduwaale na ñëw ñu xool defal ko bilan am na yu bëri yoo xam ne en tout cas dañ koy mën a def ba nga xam ne presque daal ñi nga xam ne dañoo am problème mu euh, télé. Mhm. ñu ci bëri daal vraiment bu fekkee ne dem nañu dem fi ñu war euh, mën nañu am mhm. satisfaction. mais docteur tey ndax euh, thérapie. koy def en tant que urologue certes côté médecine moderne bi dina taxaw mais tant euh, suñu ñëwee tey li ngeen di njëkk a def mooy euh, thérapie boobu waxtaan ak ñoom ngir mën leen a génnee ci li nga xamante ne la nekk mm-hmm. des fois mën na bañ a doon loo xamante ne day soxla traitement mais waxtaan rek euh, ci lay soqeekoo mm-hmm. waaw mooy presque boo seetlee ci ñi ñuy consulter yëpp presque plus de la moitié ñi ñëw yëpp amuñu benn problème organique maanaam amul benn feebar bu nekk ci ñoom xam wax naa la sànq ne mhm. diabète mën na ko indi mhm. hypertension mën na ko indi donc yooyu ay feebar la yoo xam ne mu ngi sa yaram mën na ko indi mais ñu ci bëri du ñu am benn feebar donc ça veut dire ci xel bi la nekk mhm. donc conseil euh, psycho psychologique yoo nga xam ne xam nga traitement psychologique waxtaan ak ñoom won leen lan mooy kii bi euh, ak li nga xam ne moom la ñu war a jëfe yu bëri boo waxtaanee ak ñoom rek cinquante pour cent yi dañ maintenant mën nañu def euh, ci ñeneen ñi nga xam ne peut-être traitement boobu psychologique bi taxul mu mu mu def li ñu bëgg mun nañ ci yokkaale maintenant ay traitement médical Et la plupart du temps bu bu ko jëlee rek loolu dafay daal di déclencher ñu xam ne xëy na euh, peut-être ci seen xel la nekkoon mais amul benn problème. docteur dafa am beneen phénomène boo xamante ne moom moo bees ñu gis ko mu aju ci ay euh, pommades ak ay huiles yoo xamante ne soo koy utiliser ci sa arroir day favoriser li nga xamante ne moom moo di érection bi. mais pommade yooyu ak huile yooyu itam est-ce que xamante ne moom moo di dysfonctionnement bi ñu nemmeeku léegi waaw am na ay pommade yoo xam ne day bu fekkee ne pommade du docteur la am na ay pommade yoo xam ne moom xeetu garab la rek boo xam ne dañ ko ciy def ci biir kanaal bi euh, c'est la même chose ko comprimé bi nga jël wala piqûre bi nga jël bu denk ay xeetu pommade yoo xam ne jàng nañ ko xam nañu lan la mën a def ci nit donc bu fekkee ne yooyu xeet ngay wax loolu amul benn risque parce que ki la koy jox dana la wax na nga koy jëlee ak ban rythme nga koy jëlee. Mhm. ak bu fekkee ne am nga ci benn jafe-jafe li nga war def. Mhm. donc yooyu amul benn danger li am danger kay mooy peut yoo xam ne xamuñu fu muy jóge fu ñu koy préparer ak lan mooy composition bi nga ji koy jëfandikoo loolu mën na conséquence peut-être plus tard même bu dee bu dul léegi léegi sax plus tard mën na la indi ay jafe-jafe. Mhm. donc nañu utiliser garab yoo xam ne vraiment c'est c'est c'est c'est reconnu te nit ñi jàng nañ ko lu mais le problème mooy nag euh, li ñuy wax sànq comme aphrodisiaque yi jógee en Chine et en Inde un peu partout léegi tey pommade yooyu itam dafa ne xuus ci biir marché bi mais jógewul ci li nga xamante ne moom moo di ordonnance su docteur man na ku nekk ci ligne bi docteur ñu jël ko asalaamaaleykum waaleykum salaam. sëñ bi da ngay wàññi télé bi bañ a déglu bi déglu sa téléphone ngir dégg-dégg bi gën a neex nga yokk sa baat. waa ñu ngi lay déglu tur bi naka la fooy wootee. Assane Diom Touba. waa Assane Diom Touba ñu ngi lay déglu. Assane Diom Touba. waa Assane Diom laa wax ñu ngi lay nuyu di la déglu. na koy sant yàlla bu weex. yéen ak jàmm. ñu ngi sant bu weex. alhamdulilah. Mm-hmm. dafa am laaj booy jagleel docteur ndax ñam bu tàng moom ndax ndax baax na baax na ci góor daal wala déet. lan. ñam bu tàng ñam bu tàng maanaam lekk bu tàng. waaw. waaw ndax baax na ci góor wala déet. ndax baax na ci góor. waaw lekk bu tàng waaw. ah dañ koy faral di aaye. waaw waaw ndax ma ne ndax baax na ci góor wala déet waaw. waaw docteur mi ngi lay déglu dina tontu. waaw jërëjëf jërëjëf Assane Diom doon wootee Touba. nee na ci société bi xam nga dañuy faxal di dégg naan lii baaxul ci góor lii baaxul ci góor par mm. exemple góor warul lekk ci cin da koy wàcc loola ak yooyu mais moom lekk bu tàng lay laajte <laughs> ndax baax na ci góor <laughs> waa lekk bu tàng moom maanaam eh, bu foot lekk bu tàng bu doon wàcculoo góor lal moom defe naa ne ñu bëri nañ wàcc <laughs> wàcc la bu ñu xëyee eh, defe naa kénkeli baa bu tàng la kii di naan ataaya di naan yëpp yooyu ay xeetu lekk yoo xam dafa tàng noonu loolu daal loolu amul benn effet mm-hmm. ci ngóor a góor Uh-huh. voilà naa ci kon dafa nekk ay phénomènes yoo xamante ne rek dañ koy wax rek euh, par exemple ñu neen góor lekk ci cin waaw loolu ce pas prouvé que am na benn effet wala paaka waruñu ko def ci ñam bu ay croyance traditionnelle la daal yoo xam ne scientifiquement amul benn effet c'est pas mhm. prouvé mhm. mais euh, tey lan moo fas yéene doon euh, taxawaay wala yan matuwaay la xale yu góor yi war a jël ngir mën a sàmm li nga xamante ne moom moo di seen ngóora wala koo xamante ne daf ko dàpp naka la mën a def ba jubbantiku ngir moytu itam mu dab la naka nga mën a def. waaw bari na ci donc euh, comme ni ñu doon wax léegi ci xale yu góor yi surtout ak ñu bari du xale yu góor yi sax ndax am na ay mag yoo xam ne ñu ngi ci donc di wut performance sexuelle maanaam yow nga nekk ak sa soxna musulaa wax ne li ngay def doyuma ngay wut lu lu ëpp loolu. Mhm. ñu bari moo leen di dugal ñu jël ay yenn xeetu médicament yoo xam ne mën nañ ko indi jafe-jafe parce que euh, peut-être que yegguma ci mais am na yenn xeetu médicament boo ko jëlee peut-être ngéer ngóora bi mën na jug te dootul wàcc mm-hmm. te yooyu yëpp ay complications yoo xam ne dañ koy faral di rencontrer donc ñuy faral di wut ay performance ensuite lekk bu sell wax nañ ko léegi am na yenn xeetu euh, lekk yoo xam ne ñu ngi koy lekk dafay indi des maladies cardiovasculaires dana indi ay fe yenn xeetu feebar yoo xam ne à plus ou ci ngóora bi la jëm képp koo xam ne da nga amee diabète moo tax ñuy wax nit ñi ñuy de mhm. képp koo xam ne da ngay am hypertension artérielle képp koo xam ne xëy na insuffisance rénale la ba bu nga mujjee ci dialyse ak yenn même euh, neuroleptique yi ñu jël ci yenn xeetu feebar yoo xam ne maladie psychiatrique la yenn xeetu garab yi nga xam ne aussi dana mën a indi loolu euh, yooyu yëpp bu fekkee ne nit ñi ñu ngi koy moytu di sellal seeni lekk di sellal seeni i mën a xam ne nit ki ngóoram moom Euh, ñëpp ko kii euh, bañ cee wut loo xam ne kenn bugg ko defe naa ne bu ñu yemee ci loolu rek sellal seen seen i dund xëy na mën nañu mucc ci euh, dysfonctionnement érectile. waa léegi dafa am koo xamante ne itam ci internet yi rek muy aldom nee na moom mi ngi rafetlu émission bi waaye laajam bu njëkk mooy yan inconvénient la rapport non espacé mën a jural góor. wax naa ko sànq. Mhm. Euh, euh, nu mu tuddati euh, affaire ngóor affaire u sëy amul benn règle boo xam ne nit ñi dinañ ko joxe naan ñaata yoon nga ko war a def par bés ñaata yoon nga ko war a def par guddi wala ñaata yoon nga ko nit ku nekk mën nga adapté wu ak sa partenaire parce que aussi léeg-léeg góor ñi dañuy defe ne seen bopp rek la ñuy xalaat du ñu xalaat ku jigéen ki mm-hmm. ndax bu fekkee ne yow sa nga bopp rek defe nga ne yow mën nga ko ñaari yoon ñetti yoon mais seetuloo ki nga koy seqal attan na ko ndax mën na ko jural leneen lu bëri la plupart du mais amul benn app boo xam ne war nañ ko mën a wax ne ñaata yoon la ko war a def mais li mu mën a indi surtout ci ku jigéen ñi ay infection yu bari lay indi. Mhm. kii euh, Ndumbe Mbodj euh, la tudd moom nee na de demande ndax dysfonctionnement érectile peut être la conséquence d'un hydrocèle opéré ou pas. non non non euh, bokkul hydrocèle feebar la boo xam ne effectivement ci ci nen yi lay nekk benn ndox la rek boo xam ne dafay entouré. Euh, kii bi euh, testicule bi. Mhm. donc dindi ko dindi ndox moomu mënul indi euh, dysfonctionnement érectile donc bokkul. Mhm. ça n'a rien à voir lim ci teg mooy ndax mën nañoo faj di ki wér péng. oui lu bari dañ dañ dañ defay bu fekkee ne nekkul ne comme ni ñu wax ne feebar boo xam ne par exemple ñun ñoo ko opéré mu am yenn sidit yoo xam ne gaañu na mu récupérer yu kiiwul wala muy diabète wala hypertension yooyu dañ leen di dimbali. Mhm. nekkul ne sax dañoo tële ba complètement mais dañ leen di dimbali mais yu ci bëri. plus de 60 pour cent de ceux du benn maladie organique moo nekk ci ñoom mais problème psychologique bu ñu ko traité rek dafay wér complètement ñu jël euh, ki ci ligne bi euh, docteur asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bi tur bi naka la fooy wote euh, maa ngi tuddee Samba Thiam. waaye yan ma yëkkatil baat bi tuuti. Samba Thiam. Samba Thiam Samba yëkkatil baat. waaw Louga Louga laay woowee. Louga waaw Louga ngay wootee ñu ngi ziar waa Louga yëpp di taataan xalaat wi. waaw. ñu ngi lay déglu Samba. waaw man bon dama doon laajte pour euh, insuffisance sexuelle quoi boo xam ni. c'est lié à au diabète. Mhm. waaw est-ce que am na am na remède ou bien médicament boo xam ni mën nañu ko bu exister bu mën daal bu mën a yokk kii daal. bu mën a mhm. yokk ngóor quoi. Mhm. docteur dina la tontu léegi Samba. voilà ou bien dina la tontu léegi wax na ko sànq waaye dina nga mën cee jot. d'accord ah, ñu lay jaajëfal Samba Thiam doon woote Louga docteur question am dégg nga ko mu aju rek ci euh, dysfonctionnement boo xamante ne li ko sooke wala wàññi ngóora lu ko sooke mooy euh, jàngoro bi di diabète. waaw li mu ko mën a wax mooy premier traitement. Mhm. mooy que diabète bi na ko équilibré maanaam mu fexe ba nga xam ne suukar bi dootul yéeg parce que plus muy yéeg plus muy indi ay jafe-jafe donc bu fekkee ne moom apparemment xale la diabète bi xëy na yàggagul yàggaay boo xam ne mën na indi ay kii ay gaañu gaañu yoo xam ne mën na nekk yoo xam ne mënatuñ ko réparer donc première chose mooy na def tout pour que diabète bi mu mun ko équilibrer suivre traitement am ak régime am dañuy mhm. bu ko defee rek xëy na complication yëpp dana dañ ensuite maintenant bu fekkee ne euh, dafa am dysfonctionnement érectile boo xam ne c'est secondaire au diabète yu bëri yu ci bëri mën nañ ko traiter ba mu wér ba nga xam ne dootul am jafe-jafe de dootul soxla sax garab. Mm-hmm. mais am maa nag am na ñoo xam ne bu fekkee ne dafa avelu lu yàgg. mën na am léegi nag à vie peut que dañ koy jox ay garab yoo xam dañ koy dooleel. Mm-hmm. sama réalisateur mi ngi may xamal ne docteur am na keneen ku nekk ci ligne bi il préfère garder l'anonymat asalaamaaleykum allo. allo maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi euh, docteur mi ngi lay déglu nga jagleel ko sa laaj. allo allo. waaw ñu ngi lay déglu bu baax sëñ bi yow rek lañuy ñuy déglu sa laaj. waaw premièrement mooy maa ngi rafetlu émission bi nga xamal ni xaw nañ ko yéex a jot Sénégal yàkkamti woon nañ ko. jërëjëf. deuxièmement tamit ñu ngi rafetlu plateau bi wax dëgg yàlla macha allah décoration ak yëpp macha allah. jërëjëf jërëjëf. waaw loolu moom mooy sama question mooy damay laaj ba xam comme góor boo xam ne ci yàlla daf ko maanaam muy fooyee boppam xaw ma ni ko wolof di waxee. Mm-hmm. est loolu mën na koo dem ba yóbbu ko ci maanaam mu am néew doole ci sëy jigéen wala mu dem ba doot am sax bànneex sëy ak jigéen. d'accord d'accord masturbation. ok. d'accord jërëjëf sëñ bi ñuy rafetlu woote bi. Mm-hmm. docteur dégg nga kon laajam ah, mooy euh, masturbation bu bëri ndax dina dem ba indi euh, li nga xamante ne moom moo di dysfonctionnement wala su demee ba war a seq ak soxnaam dootul amati li nga xamante ne moom moo di plaisir bi. waaw euh, masturbation bu bëri te mooy comme ni ñu ko waxee ci olof mooy foye sa bopp. Mhm. mën na am conséquence. Mhm. mais surtout ci problème mu plaisir. ndax effectivement parce que ñi ci bëri bu ñuy def masturbation seeni loxo lañu ñuy jël. Mhm. loxo nag ak kanamu jigéen bokkul. bu fekkee na da nga tàmm utiliser sa loxo bi nga xam ne boo demee ci la nga daan yëg ak sa loxo doo ko yëg fële mën na am conséquence donc lu ci bëri loolu moo leen di indi mhm. mais a priori bu fekkee ne euh, masturbation noonu rek la mënul indi euh, jafe-jafe ci sa mënul indi dysfonctionnement érectile maanaam toog bi nga xam da nga tële mhm. ndax comme sëy la rek da nga sa kanam dafa jóg nga yëngatu bi nga xam ne euh, yaa ngi éjaculer mais comme ni ma ko waxee sensation boobu nga xam ne yaa ngi ko doon ak am say loxo bokkul ak li nga xam ne moom ngay yëg bu fekkee ne da nga joteeg soxna si donc ci wàll côté boobu dana mm-hmm. indi problème de plaisir problème de de mm-hmm. euh, docteur mu mel ni waxtu bi nag euh, mi ngi ñuy euh, dàpp bëggoon nañu gën a toog gën a jot nga xamante ne moom la ñu bëgg mu jëm ci wàllub question yi ñu lay jagleel ñu jël ko mu jikki rek laataa ñuy wax le dernier mot asalaamaaleykum waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum asalaam sëñ bi tur bi naka la fooy wootee. ah soxna si nga def Mor a la bu Mbacke Bari. waaw Mor Niang Mbacke Bari honorable ñu ngi lay déglu. waaw ah, maa ngi lay nuyu di nuyu sama gan googu nga dalal foofu. jërëjëf. di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla yàlla yokk jàmm ji rek. amiin amiin amiin dama ko bëggoon laaj rek parce que ñun bi nekk ay xale. Mhm. dama gis xale yi nga xam ne ñoo ëppoon lu ñuy footal di taxawaal Mm-hmm. waaw parce que xam nga bu fekkee da ngaa jël par exemple ci fas yi rek. Mm-hmm. nga bàyyi ko muy taxawaal ci yeneen fas yi. Euh, boobu muy taxawaal noonu bu demee ba nekk mag day feeñ ci moom. moo tax euh, bu wax ko jeunesse bi ñu bàyyi foofu ñuy def taxawaal bu ñu nekkee xale. ak tamit yenn comprimés yi ñuy naan bu ñu nekkee gone di naan te aussi bu ñu ba xaw am 40 ans rek dutuñu mën dara dañuy taxawaal rek dara dutuñu ko mën. Mm-hmm. kon médecin mi ngi toog mais xam na ne. boo fooyee sa carrière bi nga nekk xale boo demee ba nekk mag dara doo ko mën. Mhm. rawatina comprimé yi xam ne léegi dafa bees moom la ñuy naan nii comme fasikour boo xasee ba am cinquante <laughs> moom wax dama ci nit ay leeram muy toog foofu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, moo ñaa nga Mbacké Barry honorable ñu koy jaajëfal docteur dégg nga li mu wax mooy. Euh, li ma doon wax sànq débauche bi mhm. maanaam euh, foowee sa ndaw euh, multiple partenaire ak euh, yi ni mel nee na soo àggee quarante ans la cinquantaine dootoo mënati dara moom mooy indi ñoom ñuy wàcc lal waaw foowee sa sa ndaw moom dig kenn diglewu ko baaxul ci kenn bi nga xam ne mil partenaire multiple ak boo xam ne au delà même nga am problème mu tële mën nga ci yele sax yeneen feebar donc li ñu digal xale yi mooy na ñu yem <laughs> docteur Gaye ngi buuxante ci lii ñuy jëlaat keneen asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi tur bi naka la fooy wootee. Dame Sall. Dame dafa am laaj booy jagleel euh, docteur Issa Labo. waaw maa ngi maa ngi wootee ñu ngi lay déglu. waaw man li may laaj mooy damaa amee ndoxu sikk. waaw mais dama am soxna nag. waaye mooy sëy moom. daanaka du ma def sa lu ma dix minutes sax. Mhm. après pare mais defe naa après bi ma laaj daal ñu ma daan ndoxum siti bi la ma doon laaj ba xam. Mhm. Euh, d'accord dina la tontu léegi daam koy jaajëfal di nuyu waa Louga dégg nga siti waaw ndoxum siti moom euh, ci français wala ci médecine euh, mënumaa wax ne bii feebar la mhm. ndax boo gisee malade yu bari ñu ñëw di consultation dañuy kii day ñëw problème bu der ci peau bi ñu ne la ndoxum siti la kii ñëw problème ci euh, même ci weey ñu ne ndoxum siti la kii am problème sax euh, ay polype ñu ne ndox ndoxum siti rek boo waxee ne ndoxum siti waxuloo lii ak lii ak lii la du ñu mën a xam ndax loolu am na effet ci sa ngóora wala déedéet mm-hmm. mais li ma ci mën a bu fekkee da am ndoxum siti mais nga dem faju demal ci docteur ñu seet ndoxum siti dañ koy faj lépp feebu feebar yoo xam ni ñi wax nañu ndoxu siti la ñu koy tudd ci olof boo demee ci docteur ci urologue bi lay doon mais tey mun na favoriser li nga xamante ne moom lay wax éjaculation précoce. bi nga xamante ne mm, moom la amee. waaw loolu mënuma wax ne ça peut mun na ko favoriser éjaculation précoce daal du du feebar sax gaa boo xam ne mu ngi ci yow mais xëy na souvent nit ñu bëri comme ni ma wax manque de de de kii la d'expérience la ñeneen ñi aussi nekk ci stress bi. ak parfois. est-ce que ndoxum siti euh, si euh, wàllu médecine am na tur am na appellation wala ñoom xam nañu lan mooy ndoxum siti moom laa la wax ndoxum siti ci wàllu docteur ay feebar yu bari la hmm. feebar yu bari la comme li ñuy wax euh, kii feebar yu bari la yoo xam ne boo ko limee kii dafay ñëw ne la problème juste la kii ñëw am benn infection même génitale mu ne ndoxum siti la donc pour ci ñun boo ne ndoxum siti rek te ñun gisuñu la mënuñu wax ni lii mooy feebar mais ci ñun ay feebar yu bari la Mm. feebar yu bari la infection yu urinaire infection génitale ak infecteur même yoo xam ne ci ci ci ci cutané dañ koy wax ndoxum siti la mm-hmm. donc mënuñu mm-hmm. wax d'emblée boo waxee ndoxum siti te gisuñu la rek bu ñu wax ban façon bu feebar la mm-hmm. feebar yu bari la uh-huh. kon euh, ñu lay euh, jaajëfal docteur euh, tey ban conseil ngay jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi ñi nga xamante ne tey am nañu seen jàngoro jooju di dund ak moom néeguñu ko woon wax nga xamal leen ne jàngoro gi dina wér ci kaw ñu consulter. may njëkkee mooy d'abord ci prévention prévention bi mooy comme li ñu doon wax ci njëkk pour xale yu ndaw yi débauche bi ñuy wax xëy na am na dina ci mën a am conséquence plus tard. Mhm. donc ñu mën a bañ a fexe seen foye seen ndaw dugg ci loo xam ne xëy na boo ci duggee mu nekk loo xam ne lu durable mën a am sa soxna mën a dem. li ci ma li ma ci njëkk a yokk mooy sur la vie. donc mhm. euh, nga sellal dund bi. Mhm. mooy surtout ñu wàññi cigarette bi wàññi lekk lu niin yi wàññi lekk bouillon yi. wàññi donc lépp bépp xeeba xeetu feebar boo xam ne mën na indi maladie cardiovasculaire wala muy indi diabète wala mu indi insuffisance rénale yooyu yëpp nañ ko moytu parce que yooyu boo ko defee rek mën na mucc ci ci loolu mhm. maintenant am na ñi nga xam ne am lu ci bari wax nañ ko fii d'origine psychogène la maanaam la plupart du temps nekkul feebar boo xam ne mu ngi ci ñoom donc souvent ci xel bi la nekk stress de la vie ak social ak yooyu yëpp mm. ñooñu bu ñu fekkee ne dem nañu ci docteur xëy na yàlla mën na def ñeneen ñi nag aussi am na ay xeetu garab yoo xam ne mun buñ la ko mënee jox rek euh, en général dysfonctionnement érectile bi dafay daal di wér te nekk na loo xam ne dina wér donc nañu xam ne am na faj bu ñu demee ci spécialité dina leen defal bilan xam li nga xam ne moo war ci ñoom ñu mën leen ko jox. Mhm. te li nga xamante ne moom moo di tabu yi nag ñu lever ko. ci yenn jàngoro waaw boobu nag éducation sexuelle la boo xam ne xëy na war nañ ko mën a dugal xëy na mënuñu wax yëpp mais stade bu nekk ci école bi. lan moo adapté ak xale yooyu mun leen ko jàngal pour que plus tard balaa ñuy màgg nekk ay adulte bañ a foye seen bopp ñu xam lan mooy seen anatomie xam lan mooy sexualité bu booba xëy na yu bëri dina gën a yomb ci dina gën a yomb docteur Issa Labo ñu koy euh, jaajëfal euh, déplacé invité ci guddi gi ëllëg mu war a xëyaat euh, jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne moom moo di ay patient wam ñu koy jaajëfal bu baax ci disponibilité ma ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo jàpp ci émission bi di wér-wérle ba mu taxaw yëpp ñu leen di jaajëfal sama réalisateur Charles René Fall ma koy euh, jaajëfal ci plateau bu yanj bi itam di jaajëfal Cheikh Tidiane Ndiaye euh, Cheikh Tidiane Diop ci émission bi ba mu yem ba ci ngoon ak léegi noppaleku wuñu ngir rek ñu mën leen ko dégtal yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo leeru jamono wal fajri di jaajëfal Ndella Marguey mi ñu cappa-cappal ba ñu neex xool ci plateau weer weerle di jaajëfal itam ki nga xamante ne nag moom moo jaar ci euh, tenue bu yanj bi euh, di euh, Rokhaya ñu gën ko xam ci madame Dramé nekk ci Liberté 6 ñu leen di jaajëfal yéen ñi safee leeru jamono Walfadjri mu nekkoon seen émission weer weer le ñu yaakaar ne lépp lu ñu leen dégtaloon am ngeen ci euh, mbégte dinañ ci euh, baamuwaat fas yéene ko baamuwaat fas yéene waxtaane itam ñi nga xamante ne nag heurté nañ leen ci li nga xamante ne mooy waxtaan wi ndax wax yombul itam wax ci lu jëm ci wàllu sexualité ci dëkk bi nga xamante ne la nekk bu fekkee ne am na kàddu yoo xamante ne yëkkati nañ ko te rafetul ñu ci jéggalu bu baax li ñuy tax a jóg rek moo di Euh, di leen euh, yee ci li nga xamante ne moom moo di euh, jàngoro bi émission weer weerle ñaari ay bés bu nekk lay am yem ak talaata bu vingt 28h jotee lañ koy tombali mun ngeen yónnee itam seen i laaj si jàngoro bu leen soxal wala ponk boo leen bëgg ñu waxtaanee ko ci page Facebook bu Walfadjri page bi mi ngi nekk weer weerle Walf TV soo leen fa duggee mun ngeen. jagleel fa itam ponk bi ngeen bëgg rek ñu waxtaanee ko ci seen émission weer weerle mu doon premier numéro bi ñu leen di jaajëfal dig daje ñaari ay bés bi ñu jëm bu sëbee suñu borom. dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitose dañoo bare te ngeen aar ci jàngoro yi di leen aar ci jàngoro yi di leen aar ci jàngoro yi dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo bare